السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله الحمد لله رب العالمين والآقبة للتقوى والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di leen baalu xaq bu baax di leen baal di ñaan yàlla mi am jàmm ak salaam ak sutura yàlla nañ ko yàlla defal àddina ak àllaaxira tafsir ñu ngi nuyu suñu xarit suñu kilifa gu baax googu le di Pape Ibrahima Ndiaye <laughs> ak Adja Aïda Gueye di leen ziyaara di seet naka la ñu def di leen nuyu bu baax a baax tafsir Abdourahmane di la delloo nuyoo bi ay dara waaleykum salaam wa rahmatullahi wa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashira almuminina alladina yacmaluna alsalihati anna lahum ajran xasana walsalatu walsalamu ala almabuuthi rahmatan wa hidayatan lilaalamin sayidi alawalina walaxirin sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man ihtada bi yadi ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Chérif Maami ñu ngi lay nuyu di la wàcce sa wàccuwaay fa tabaarakallahu di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñu gi seetaan seen émission bi di seen suukaru koor di ci nuyu di ci ziyaar boroom kër gi alxaaji Njaay fa tabaarakallaahu ak soxnaam mareem ak mbooleem njaboot gi yëpp waaye macha allahu ndokkeel jullit yëpp ci lii waaye nuyu suñu grand ba Cheikh Omar Diouf ak soxnaam Titi Ndoy ak mbooleem soppe yëpp Chérif yaa ngi tàmbali woon démb fan yi yëpp yaa ngi ci émission bi nekk ci feebaru xol yi mhm. ndax Chérif bul ni waxoon nañu ni ren daal li ñu bëgg a waxtaane mhm. mooy feebari xol yi jéem ci wut ay saafara parce que l'islam nag julli gu bari dem màkka woor natt azaka taxu koo jóg bu ñu duggee ba ci biir di nga gis ni julli sax li tax ñu koy def mooy bëgg ci koy defaw koor natt azaka dem màkka lépp ba ci ñaari baatu seede yi muy shahadat an la ilaha illallah wa anna rasulullah lépp but bi ko tax a jóg mooy defar doomu aadama te buñ waxee doomu aadama mooy jikko mhm. gis nga sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kere bi mu ñëwee li mu wax mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi mhm. man de dañu ma yónni waaye li tax ñu yónni ma ma di ko dox si mooy defaraat jikko yi mhm. loolu moo ma indi man rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ren mhm. nga indil mbokk yi nag benn paquet boo xam ni li ci ne ci yiw kenn xamul nu mu toll ndax nit ki feebar nga xamal ko ni ko danga feebar xamal ko ni feebar sàngam moo dal wax ko ni ko médicament sàngam moo lay faj wax ko nii la koy jëfandikoo te bu ko jëfandikoo noonu wér ndax am na fukk wala téeméer yu feebar bi daloon ci yow la ñu ñëw nga faj leen jox leen garab ñu jële ko nan ko waxee ñu wér bu ma nee ci yow la ñu ñëw mooy ci sayidna Muhammad la ñu ñëw bu ma waxee médicament bi mooy alquran mooy liy faj jaami mhm. Chérif yaa ngi woon ci benn feebar boo xamee ni moom nga tijji woon mhm. fa tabarakallahu mooy feebaru nit ñi luwaay am bu dee teraanga ñu wut fu ñu la dëkkal mhm. gis nañu borom alal joo xam ni mu ngi xëy ak di gont xamuñu lu muy xëy xamuñu lu muy gont waaye daal yàlla jox na ko teraanga ñii ni franc-maçon la ñii ni la ñii ni nangam la mhm. gis nañu jigéen joo xam ne mu ngi xëy di gont mhm. xamuñu fu muy xëy mhm. nañu ci maandu ndax wa ma shahidna illa bi ma alim ñu xëy tudde ko beneen tur foofu nga ay eggoon démb feebar boobu nag defe naa ni bu ma juumul mooy feebar bi ñuy wax feebaru alxasad mooy feebaru kiñaan chérif bismillah ah tafsir abdourahman innama bu'istu li utammima makarim al axlaq sallallahu alayhi wa sallam kon tedd jikko yooyu war a defar jikko yi mooy lan xol bi ci kiñaan tafsir abdourahman iñaan lu tax bu bon ki nga iñaane doo dee du dee muy wér ngay feebar muy am moom mi nga iñaane ngay ñàkk muy mu muy yokk ngay wàññeeku muy xam ngay réer te yàlla ne boo ko tuubul boo deewee rek tàbbi safara yàlla nañ ci yàlla musal kon war nañu duggaat suñu ruq tuubaat ci suñu digganteek suñu boroom raxas li nekk suñu xol yëpp tafsir kiñaan a gën a bon ci mbir yi dafa am ñaari gaay yoo xamante ni dañoo àndoon dem seeti seen benn xarit bu mel ni dàbb ndeysaan bi mu kontaan nag lool mu yëkkati moom dàbb benn ganaar jox ko tafsir Abdourahman ne ganaar gi am ma jox la ko ngir jëmmi yàlla ñu génn ndekete waa ji ànd ak tafsir muy shérif bi yéenewu ko dara ñëw ne ko moo kii daal moom moom moo nay ganaaram gu yooy gi mm-hmm. ganaar gii nga xam ne feragul sax yow sànnil ganaar gi waa ji ne ko non non non ko sànni lii teraanga la teraanga du tuuti lu nit yëkkati ci alam lu mu néew néew néew néew néew néew billahi bu ko xeebal man de xeebalu ma ko teraanga bii maa ngi ñaan yàlla yàlla def ci barke lii dinaa ko téye dinaa ko sàmm mm-hmm. mu yóbbu ko teg ko kër ga waa saa yi ñëwee seet si ko rek nekko ko ani sa ganaar gi deewagul mu ne ko déedéet deewagul yàlla bi ko bind moo ngi koy sàmmal boppam comme jiital na ci yàlla yàlla def ci barke comme xolam set na ci yàlla def ci barke waajee moom da ko iñaane jékki-jékki rek ganaar gi di giir di nen muy toj muy am ay ganaar muy jaay ay ganaar ba di jëndaat yeneen ganaar ba kër ga fees dell ak ganaar waa ji ñëw xool ko xolam nanguwul mu dem ci buuru dëkk ba ne ko buur boo soxlaataa ganaar demal kër tafsir li mu yor ci ganaar du jeex yow bëgg nga ganaar lool surtout puli du pays loolu soxlaatul nga koy jënd demal nga jël ganaar yi fa nekk yëpp buur woolu waa ji ne ko xanaa xamoo ni man damaa bëgg ganaar mu ne ko buur ñàkkoon jot ci yow rek jéem naa nag wut audience ba sonn ma bëggoon ñëw di la xamal ni ni ngay sonnee ci xeet bi ak li la réew mi jaral ganaar moom bul ko jëndati mhm. saa yoo soxlaatee ganaar ñëwal nga jël ganaar yi ndax man yaa ma njaboote yaa njaboote ganaar yi buur ne ko ay waay yow daal yàq baax yëkkati ay xar yëkkati ay bëy ne ko am dolli lii ci say teraanga mhm. mu dem xar yéeg bëy yi di giir rek di giir rek di giir rek ba waaj a delluwaat ne ko buur loo soxlaati ci garan loo soxlaati ci xar loo soxlaati ci béy soxlaatul nga koy jënd bul demati marché luuma bul demati fenn demal kër tafsir li mu yor ci xar ëpp na ñaat téeméeri xar mu wooluwaat ko mu ne ko buur ah la ma sam waxoon de mooy dëgg nee na ku tabe bu la mayee dangay gën a am te yow sa tab ak sa mbaax moo tax ma am lii ma am yépp kon nag foo soxlaatee moo xam xar la moo xam béy la moo xam ganaar la ay waay buur dimbali ma yombalal ma dugg bi ndax ma lay ñëw di la ko jox mu ne ko billaahi yaa baax billaahi yaa gore mu jëlate ay nag jëlate ay gëléem yónnee ko ko yëf ya di giir rek <laughs> waaje jëlaat demaat waxaat loolu buur buur wooluwaat ko mu waxaat ko li mu ko waxoon xam nga lu buur defam <laughs> jël ay camion def ci ay su euh, ci def ci ceeb ba mu fees ay tonu ceeb <laughs> ay tonu suukar ay diwlin def ci lu ne yónnee ko ko waaje bu mu ko gisee xolu kiñaan jàpp ko mu daw woo waa dëkk ba ne leen kaay leen buur da ko jox dund bu dul jeex pour mu séddale ko <laughs> te buur moom la ko mayoon mm-hmm. waa dëkk ba yëpp daw si ñëw mu ne ah alhamdulilahi rabbil alamin ay waay woote yàlla gën bu nit <laughs> maa ngi doon bëgg dugg léegi ci jàkk ji ngir jël micro bi yéene pour ngeen ñëw ndax buur dafa maa jox dund pour ma seddale faf nag yàlla def ngeen ñëw alhamdulilahi rabbil alamin jël dund ba seddale ba mu jeex takk mm-hmm. moom amul dara lu mu yóbbu këram ñibbi këram tëdd ca guddi ga buur dee ëllëg sa ñu yeewu ñu ne nag il faut ñu am buur ñu ne ah kan lañ koy fal ñu ne nañ ko fal kii nga xamante ni bii bu ko ko buur joxee li mu ko jox daf ko jël séddale ko ba mu jeex takk te moom amul dara dem ñibbi këram tëdd fa di nelaw kii bu amee ñun ñëpp dinañ ci mos kon nañ ko jël ñu fal ko buur waa ji ko iñaane noonu la amee karjak daanu dee moo tax nag zawil xasan laa yasuudu borom ku iñaan moom du am dara lu baax kon yàlla nañu yàlla fóotal xol bi may ñu vraiment ñu am xol boo xamante ni yàlla musal ñu tamit ci kayuk aji iñaan wa kay di kulli kaa idin wa kaa ida wa kaydi kulli kaidin wa charri kulli xaasidin wa xaasida wa kaydi kulli kaidin wa kaida tafsir Abdurahman Cherif macha allahu yaa ngi ci alxasuudu laa yasuudu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku iñaan daal doo doon sang mukk boo bëggee dégg doo doon sang sayit mu ngi jóge ci saada yasuudu saada mu yëkkatiku na ku yëkk ku gën a kawe ci say maas rek yaay ala as sayid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku iñaan doo avancé Cherif dinaa la nettali rek bu dee ni xaj na fi dafa am benn buur boo demee ci ruuxul bayaan ci laa ko liire woon xaw na yàgg mhm. dafa am benn buur dafa am benn waay boo xam ni daf ko def xarit rek xam nga am na buur boo xam ni dafa am waaju ko jàppale jàppale ko lool mhm. ci ba muy falu ba mu faloo nag buur ni ko loo bëgg ma fal la ko mhm. mu ne ko dara man li ma bëgg rek mooy fu nit ñi toogee rek woo ma nga déey ma bàyyi ma ma dem loo rek doy na ma ah waa ji nag bi ko buur bi defee noonu am benn waay boo xam daf ko iñaane dem mhm. jaxase koog buur mhm. ni ko buur diw daal boo seetloo saa bu dee ñëw di wax ak yow day taf ba kenam mhm. parce que nee na sa gémmiñ dafa xeeñ kii dalaa laa yab ngir iñaane ko rek jege gi waa ji jege buur <laughs> buur di ko dee toujours buur mer bi buur meree convoqué waa ji ni daf koy rey waa ji ñëw bi muy ñëw buur bind na lettre pour mu dem ca ña ko war a rey mhm. buur bi nag dafa yoroon ñaari xeeti enveloppe mhm. pour nga dégg ma mhm. enveloppe bu kaki ak enveloppe bu weex buur bu ñu la waree rey ci enveloppe bu kaki bi ci lay def bu ñu la waree teral ci enveloppe bu weex bi ci lay def buur bi bind leetar def ni waa jii may yónnee na ñëw foofu léegi bu agsee na ngeen ko rey hmm. mais meram jàpp ko ba mu jaawat la jël enveloppe bu weex bi nga xam ne ku ñuy teral la hmm. mu def ci lettre bi hmm. waaja di dem ka ko iñaane woon boole koog buur dajeek moom ni ko yow foo jóge mu ni ko ci buur mu ni ko lu la jox mu tàllal enveloppe bi comme waa ji xam na ni enveloppe bu weex bi ci la ñuy def ku ñu nar a teral waaja këf enveloppe ba daw ba mu dawee ca ña nga xamante ni ñooy rey génne enveloppe bi jox leen ñoo ñooñu gis leetar ba ni kii dañ ko war a rey kooku di ñëw bu ñëwee bu mu wax bu leen ko déglu rey leen ko moom ñu rey ko ngir sababu lan iñaan gu mu iñaane kii bi buur bi yëgee nii rey nañu waayam ja nga xam ne moo ko boole woon mu woo ki mu joxoon enveloppe bi pour ñu war ko rey mhm. mu ne ko yow lu xew yow lettre bi ma la joxoon xanaa yóbbu woo ko mu ni ko diw laa dajeel mu këf ko dem mu ne ko kon de rey nañ ko buur yónnee ca kooka ñu ne ko lettre ba kat la nga bind mooy kii indi enveloppe bi bu accès bu mu wax bu accès rey leen ko mhm. moo ko indi ba mu accès lañ ko rey mhm. buur ni waa ji moom dafa ma waxoon ni ma yow daga ni sama gémmiñ dafa xeeñ mhm. lu tax saaboo dee wax ak man di def nii mu ne ko déedéet buur man dama la jox cër te man sama gémmiñ dama ragal mu xeeñ te bëgguma dara loola la naqari moo tax saa bu may wax ak yow nii laay def ndax jege gi ma lay jege bëgguma laa lor kon loo ciy gis ndekete yéene néeg la borooma cay fanaan mhm. kon nit ki ndekete boo ko iñaanee moom day avancé yow da ngay dellu gannaaw ci lu wér Chérif am na beneen buur ndax ruul bayan day def yu bari bu ko firilee daf lay indil qissa mhm. am na beneen buur moom xam nga lu ko yàlla nattoo mhm. jabar ju iñaan bëggul buur bi defal kenn lu baax hmm. buur bi jënd jën benn waaye ko romb di ko jaay buur damay jaay jën nangam nangam looy jaayee yabooy bi mu ne ko yabooy bi maa ngi koy jaayee junni hmm. buur bi ne ko yabooy rek junni mu ne ko hmm. buur jaayu ma la yabooy yow ni nga toll laa la jaaye ndax du ma la jaayee li may jaayee nit ñi ndax tolloo wag nit ñi personnalité buur bi gis boppam jënd yabooy bi aksi jabar ji ne ko yow foo jëndee yabooy bi mu ne ko ci diw mu ni ko loo ko jënde mu ni ko junni mu ni ko yaboy di jar ñaar fukk nga koy jënde junni mu ni ko nee na ni ma ko jaayee ni ma toll la ma ko jaaye mu ni ko da lay dóor rek li mu wax gëmu ci dara buur bi ni ko nu may def jabar ji ni ko delloo ko jën bi mu ni ko nu may def ba delloo ko rus naa ko jabar ji ni ko bu waa ji da nga woo ba mu ñëw nga ni ko jën bi lan la góor la wala jigéen boo ko nee ndax góor la mu ni la waaw nga ni ko bu jigéen laa bëgg mhm. boo ko nee ndax jigéen la mu ni la waaw nga ni ko bu góor laa bëgg mhm. waa ji ñëw doon dite mhm. buur bi ni ko waa yow jën bi nga ma jaay lan la waa ji ni ko guy jën bi nguuni ngaana la nguuni ngaana mooy du góor du <laughs> jigéen fa tabaarakallaahu ba noonu la demee akub junneem buur jël ay jënam pour wax la rek iñaan fi mu àgg suñu boroom ngi wax ci alquran am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadli ndax da ngeen di iñaane nit ci teraanga yi ma leen defal iñaan garaaw mhm. mooy ki ngay iñaane defu la dara suñu borooma la def mhm. ndax suñu borom subhanahu wa taala mooy seet ku ka neex mu def ci moom lu ka neex mm-hmm. fadlullahi yutihi man mm-hmm. yacha mm-hmm. yàlla mi xool shérif jël teraangaam def ko ci moom nga iñaane shérif dafa mel ni kon yow d'accord ak yàlla ci li yàlla def moo tax yàlla da lay delloo gannaaw shérif di gën a avancé shérif ñu ngi ci poñe boo point boo xam ni bari na ci àdduna waxuma Sénégal mais bari na ci àdduna te lu baree bari mooy li ñu tardeel mooy iñaan googu li ñu amoon ci waxtu jeex na incha allah bu ñu yàlla indee suba ci waxtu wii fii 2STV fa tabaarakallaahu ci seen émission seen suukaru koor ñu indil leen ko incha allahu li des ci kiñaan yal nañ yàlla defal dégg ak topp yal nañ yàlla musal ci kiñaan yal nañ yàlla musal ci iññati yal nañ yàlla musal ci iññati yal nañ ko yàlla defal bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni a'lami alhuda wa bi sahbihi wattabiina lahum fa hum sadatuna ahlul makarimi wan nadat ah ay dara karara amin amin ay dara waxu sa maam ja nga tembalee rek ah, wa tahiril qalba min hiqdin wa min hasadin yal nañ ko yàlla defal wa min charri xaasidin isa xasad yàlla nañ ci yàlla musal ay dara jërëjëf kon incha allah ba suba bu soobee yàlla jërëjëf ay dara salaamu alayka ya rasulallah